soxna ti ba Sénégal ak dal leen ak jaamu ci xibaar yi nekk dañ koy dooxeek mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante ne si ne nag instant bii nii rek ñëpp rek ñoo ngi toog di xaar rek ana rek fan lay mujjee ginnaaw conseil constitutionnel rek ci samedi gi rek la war a génne li nga xamante liste définitive bi nga xam si ne nag moo di ñi war a doon li nga xamante ne si nag moom moo di candidat ci élection présidentielle yi deux mille vingt quatre moom mi nga xam si nag moom moo di euh, conseil constitutionnel daal ci. samedi bi rek lan ko war a génne est-ce que nag kii di Bassirou Diomaye Faye dina doon candidat est-ce que nag ki nga xam si na moom di Ousmane Sonko dina doon tànn candidat ak ki nga xam di Cheikh ndax xam ngeen bu baax a baax ñoom ñëpp nag instant bii ne rek état bi da leen teg teggit pour rek ba dun doon li nga xam di candidat ci élection présidentielle 2024 mais daal Sénégal yi yëpp rek ngi toog di xaar rek ana rek ba xam fan rek lay mujjee kon nag Sénégal yi yëpp rek ngi toog di xulli ba rek di xaar ba xam Ousmane Sonko dina bokk wala du bokk way leen di abonné